salaamaaleykum wa rahmatulah jaa ngeen jëf mbokki internet yi ginnaaw bu ñu leen nuyuwaatee bu baax a baax mu mel ne ñu ngi ci euh, Touba Darou Salaam ci góobam Xelcom 2024. mu mel ne gis nañ ay mbokki taalibe yoo xam si ne bàyyi ko nañ ci ay bërëb fasantikoo ngir yàlla ak jëmi sëriñ bi waaye wane seenu xër ci liggéey bi ak seenu njàmbaar kon ñu taxaw ak kenn ci jëwrin sëriñ Moussa Cissé euh, sëñ Moussa mën nañ xam liggéey bi kañ ngeen agsi ak euh, naka ngeen ko nosee ba liggéey bi maanaam yembe. salaam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu li ñuy jëkk a wax mooy li ngeen indi fii yàlla na ko suñu borom barkeelal te yëkkati ko ca kaw ci barke ki ñuy liggéeyal Serigne Cheikh Saliou te Serigne Cheikh Saliou képp ku ko liggéeyal yaa ngi liggéeyal Serigne Saliou ndax Serigne Saliou jógu fi nii fi xel kom dese nga xamante ne ñun 91 ba léegi ñu ngi fi ñëw noonu la fi Serigne Saliou Mbacké dese ndax euh, boo xoolee ci sëñ Cheikh léppam rek sëñ Saliou la waaw lii ne ñun ñoo ngi ñëwoon barki démb ci liggéey bi ñu ngi ñëwoon barki démb jógee ci kër maam Cheikh Anta di sant nag euh, alaaji Serigne Fallou Galas Sylla alaaji sëriñ Fallou Galass Sylla moom maam Cheikh Anta waaye moom sëñ Modou Rokhaya moom sëñ Modou Mamoun moom maam Cheikh Anta ñu ngi koy sant bu baax na di ko nuyu nag bu baax a baax a baax a baax di kontaan ci seen liggéey yéen ñii ak liggéeyam moom ak yaatal gi nga xamante ne mi ngi koy yaatal waxuma la Daaru Salaam waaye askanu murid bépp lay yaatal waaye askanu lislaam bépp lay yaatal ñun ñëw nañ fi barki démb ci guddi yi ah, ànd ak waa ahlul badar ñoo doon defar ah, dal yeeg yooyu di waajal eh, lekk yeeg yooyu ah, biñ xëyee démb ci lañ xëy tey ji tey ji tamit ci lañ xëy Fallou am na solo la macha allah ndax jot ngeen saytu tool yi ba xam ñaata tool la wala actuellement xam ngeen ba xam ñaata tool lañ a waaw tool yi de man bi ma ñëwee damaa laaj dongo yi ku mel ni Moudou Seck ak euh, Serigne Ndiaye ñoom ñu wax ne ñetti tool la démb nag bi ñu xëyee xëy nañ ci benn tool bi ah, am naa yaakaar ne àgg na ndax bi ñuy dem bi ñuy bi ñuy bi ñuy wàcc ñun àgg nañ ci digwa damaa xamul nag beneen côté ba jëlee ndax tool dafa yaatu tey ci biir xëyee tamit ñu ci deuxième tool bi fi toll ne daal xam naa ne troisième bi mooy des am naa yaakaar am na ñu fi nekk ñu am yaakaar baax ndax gaa ci bu baax a baax ñun moom ñu ngi sàkku lépp rek lépp la ci doole maam Saliou la ñun moom ñu nga ñun moom ñu nga ba Bambey mm-hmm. waaye nag ñun moom ay ay maam Coon na lan waaye ñun moom danoo ne Baye Fall yoo xam ni moom lu xew la ñuy dem ñun daal l'essentiel daal moom ñu ngi xamal waa adduna bi ñun fii ba Amérique ba Italie ñun moom fu seen Tuubaa wootee rek ñun Baye Fall yëpp dañuy tëkk jóg ñun Baye Fall yëpp dañuy tëkk jóg ñun Bambey lan bàyyi ko am na ñu bàyyi koo Ndakaaru ñuy bàyyi koo Siin ñuy bàyyi koo Italie ñuy bàyyi koo Amérique waaye ñun moom Bambey lan bàyyi koo Bambey lan bàyyi koo kër sunu Xuja Fall lan bàyyi koo waaw ñun barka dem lañ ñëw ci tool yi waaye doo ñëw rek dugg ci guddi gi guddi gi sax lan lan lan doon dóor nii ba heure bii nii waaye fi mu toll liggéey bi moom mi ngi tox bu baax a baax a baax a baax Baye Fall yaa ngi koy doxal Yaay Fall yaa ngi koy doxal fi mu toll daal moom amuñu lenn lu sant Serigne Touba rek moom kay moom liy soññe mooy liggéey rek liggéey rek liggéey rek liggéey rek waaw ba wax ma Serigne Touba yàlla buñ buñ buñ buñu gërëmee Serigne Touba gërëm ñu bu ko defee àdduna bu ñëpp gërëm ñu waaw ñu ñun ñun daal liggéey ba jana rek ànd si mu ndaxaa ba jëna rek waaw ci la nekk ànd ak bay mu ndaxaa ba jëna rek waaw la ñu ngi sant borom bu baax ñu ngi sant waa kër maam cor nañu waa kër maam ziar bu wér ñun ñoo ngi jógee Kër Massar ci Malika mhm. jógee daara seen jiili ñoo ci xelkom bi macha allah bu mu ñëwee mbette yaay faal yi bay faal yëpp ñoo ngi fii liggéey nañ macha allah tool yi mooy loolu daanaka. sant yàlla rek ba def yàlla dañu naan métti na benn boo ñëwee doo sax yëg métti bi wala azim ndax tellement métti bi ngay àndal ak sëñ Saalu rek xam nga képp ko bëgg moom yaakaar naa ne booy def ci lu mu bëgg doo yëg métti ndax sëñ Saalu tegul kenn lu métti moo tax booy booy liggéey liggéeyam macha allah doo santi dara bilaay mbette rek ngay am. Mhm. di ñaanal kilifa diine yi di ñaanal sëñ Muntaxa yàlla fi yàgg te wér ci bàkk sëñ Saalu Mbàkke jërëjëf. naa leen di di sant ñëpp nag fii ab taw feex doo nga fi ne waaw sant Serigne Touba ak Serap Fall ku tedd gi nag moo ñu fi tax a jóg moo ñu andi maanaam ci barab bi barab bu sell bi te dañ koy jaayante lu mu laaj na bu laajee bakkanta dafay des dafay des ngir jëmmi maam Saliou samay ñaari jëwri nag xam naa. alhamdulilah barke Cheikh Modou Moussa maa ñëpp di tubaat baax nax ndax amaana dañoo lott lool ci kàddu yi war na Cheikh Ibrahima waaw waaye gars yi ñoom ñoo yéwén rek maam sëriñ bi moom daanaka. boo xëy liggéeyal maam tanaan danga danga danga dellu ginnaaw man loolu dama koo gëmut ndax ndax ndax suñu saali da daan wax ne liggéeyal suñ Tuubaa de ma ci yërëm nit ndax boo yawrul di ko jox sax mu jox la te boo amee di ko jox mu ful loolu te bu fulee loolu nga di ko jox mu barkeelal loolu maam amaana ñun sëriñ bi daf ñoo daf ñoo mataleel lépp war na Cheikh Modou saa te ñun nag sañ borom bam ñuy sàq ku ci nekk ñaari biir la la sàqee sa biir bopp ak sa biiru bàmmeel sa biiru bopp moom lu ci war a dugg da ciy dugg waaye sa biiru bàmmeel sàlla loo fa jëful lu nekk fa fekk wala sëñ Touba te ñun moom daanaka dañoo bëgg a sax ci liggéeyal sëñ Touba ak Cheikh Ibra ba faatu wala Cheikh Modou Moussa bu baax nag ci kàddu yi ndax dama cee lott lool. Ah, di ko màggal di ko wërmaal waaw sëñ Damel sëñ Modou Moussa sëñ maam Saliou Suisse sëñ Modou Moussa Fall maam Serap Fall barke maam Serap Fall kàddu yi mu am na solo lool liñ si gën a jàngat rek mooy yërmande Serigne Saliou nga xam ne fu mu tolloon ba pare liggéeyal Serigne Touba mu ne du si yërëm kenn kon liggéeyal Serigne Touba lan la. nga xam ne sëriñ bi dem na bay ñaan yàlla nekk murit suñu borom ne ko maa bañ dama lay def nga doon sëriñu murit yi kon yoonu murit maam mooy yoon ba kanam ma jëm sa yàlla ñu ñëw fi ngir liggéeyal suñu borom si ci tarbiye suñu bopp si ngir dimbali suñu bopp tamit ndax sëñ Saali lu mu waxoon rek jox leen ma ndaw ñi ma def si ñoom la sëriñ Tuubaa defoon ca mag ña kon loolu rek lañ fiy sàqu si di ñaan suñu borom lépp luñ fi def rek yàlla nañ ko saa borom fulal kattan ñu ko te sàmmal ñu ko doolee maam Seydou Fall ñu ngi leen sant bu baax di gërëm ñun ñoo ngi bàyyee ko Baari Ndondol bokk ci daaru daaru salaam dem ci guddi la ñu ñëw fii ni Xelkom euh, ci liggéeyu siñ bi wallahi xel euh, Xelkom gi moom wax dëgg neex yàlla amuñu ci nii quoi comme ni ko kii waxee rek siñ Tuuba moom fi mu woote ñun dañ fay teew même bañ jógee Dakar sax dañu ñëw ba ci dëkk ba jëlaat oto ñëw ba fii nii parce que Ndakaaru Njaay la ñu nekk waaw ndugaa daal ñun moom wax dëgg neex yàlla Sëriñ Saliou moom moom la ñuy bu bëgg quoi man man Ablaye mu Sëriñ Saliou noonu laa tudd noonu lañ may woowee bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata alladina an'amta alayhim xayril maxdubi alayhim wala daalin amin ak Sëriñ Saliou waaw bokki jullit bokki taalibe yi lu ñu fi indi mooy Pastef ak ku bëgg akuk dogo ñu ngi ñaan yal nañ ci sëñ bi fekk te lépp lu fi jëf yal na ko sunu borom nangu di ñaanal Cheikh Salif Mbacké fa mu tëdd sunu borom yokk ay leeram doole yi xéebal yàggal fi Cheikh sëñ Cheikh Salif ak Cheikh Moustapha Salif ak mboolem mu bokk sëñ Touba di ñaan sunu borom lii na doon ay ati at yéen waa rajo bi ñu ngi ñaan na ko dalee ca kaw ba ci suuf muy góor jigéen mag ndaw ku ciy jëf ku ne yal na suñu borom yokk sa wér yokk sa xéewal defal la jàmm ak tawféex fa nga bëgg àgg yal na suñu borom àggale te yàlla bu la dara dog ñoo ngi ñaan ci barkeb xasida yi barkeb Taysiir Asiir barkeb Sindiidi sunu borom may nu kenn ku nekk aaju ji nga fi indi sunu borom defal la ko na nga ko bëggee te dara bañ koo gàllankoor dara bañ koo dog ñi bëgg a tukki yal nañ tukki dem ci jàmm ñëw ci jàmm indi xéewal ñi nga xamante ne bii dañoo feebar indi fi jàngoro ak ràgg ak yitte bu mën a doon sunu borom saafara ko na mu gën a gaawe yal na ajo yëpp fajo yal na ajo yëpp faju yal nañ ko tewee déwén déwén allahumma salli ala sina sant yàlla ak Sëñ Tuubaa ak maam Cheikh Anta rek a ah, fas yéene liggéeyal maam Cheikh Anta géej bi daal moom a ah, fas yéene nañ ci ñu ngi ci ba siñ bi am lu mu bëgg rek ah te gëm naa ne siñ bi bu amee li mu bëgg rek ñun ñëpp ñu am liñ bëgg waaw ah, képp ku fi taxaw daal fas ci bu baax a baax a baax waaw ah, xanaa kay li xaw a mankaa mi moom mooy a ah jawrin yi dañoo war a taxaw ñu ñu ñu yot doomi aadama yi ndox ñu naan waaw ndax fi mu ne nii liggéey moom ndox a ko yor buñ naanee rek ah liggéey bi daay daal di neex ñu ñu door ko mu daanu ñu dem ñibbi. ah. ah xanaa ñu fas rek ñu fas rek te góorgóorlu ndax man depuis depuis góor ba siñ moo roqee woote woon góor bu njëkk ba depuis boobu ba léegi maa ngi ñëw xel koom waaye gisuma ci leen lu dul yokkute rek ne yokkute rek man daal a ah, képp kuy ñëw ku ñëw xel koom ku ku ñëw xel koom ku ne dina ñeeku ñëw ku ñëw xel koom loolu rek laa leen mën xamal. xel ko moom loo fi fas boo boo ko amul rek ci yow la góorgóorlu rek fas loolu daal laa ci amoon lu may leeral. ñi ngi ñëw fii ñëw ci góob bi ñun sëñ Saliou jaral na ko sëñ Saliou jaral nañ sax lu ëpp lii barki yonent bi ñu am contentement trop foo ko nattu rek wees na ko barki Serigne Saliou ñoo ngi bàyyeeku ba kër Baaba Alima. jaa ngeen jëf mbokki internet yi ginnaaw bu ñu leen yu nuyuwaatee bu baax a baax ba tey ñu ngi ci ngóobam Xelcom 2024. comme ni ñu leen ko waxee woon rek boobu léegi ñu fi gis mbooloo moo xam si ne jigéen ci ay bërëb yu fasantikoo euh, tey ñu taxaw ak kenn ci yaay booy yi ndeysaan mu bàyyi ko daaru baaxum ngir yàlla ak euh, jëmi sëriñ bi euh, si ñu laaj la liggéey bi taxawaay beeg Pastef geeg njàmbaar gi. Pastef geeg njàmbaar gi naka la demee dëgg-dëgg. sant yàlla sant sëñ sëñ góor baaxum borom daaru baaxum tey nag ñu ñëw fii xel comme liggéeyal sëriñ Saliou waaw. comme que comme dañoo woote waa Daaru Salaam woote te waa Daaru Salaam tamit waa Daaru baax ñoom lañ yaakaar léegi nag ñu ñëw liggéeyee sëriñ Saliou Khelcom di jiital ci nuyoo bi si Daaru baaxum mu suñu xalifa di sant bu baax am kontaante bu baax waaw di wax nag ne sëriñ Saliou moom am nañ sëriñ waaye ñun mooy suñu féete daal waa waaw mooy suñu féete dañu bëgg sëriñ Saliou xëy na nag xamuñu koy sëriñ Saliou mosuñu ko gisit waaw waa yëg-yëg bi ak bëgg-bëgg gi di ñaan tamit Serigne Saliou boo gën noo boole daal ñu fekkee ko ay at yu bëree bëree bëri dem tamit ba lépp luñ bëgg rek mu yokk xéwal yeeg gudd fan geeg wér geeg ñëpp xaj daal mu gën a yaatu incha di santaat bu baax di gën a bëggaat Serigne Saliou di ñaan yàlla gëñ noo gëñ noo boole Serigne Saliou daal waaw ndax xam ne nekk loo xam ne day jëm ci ginnaaw ci kanam rek lay jëm waaw ci kanam rek lay jëm waaw alhamdulilah sant nañ Serigne Saliou bu baax baax alhamdulilah. Euh, salaamaaleykum wa rahmatulah jaa ngeen mbokki internet yi ba tey ñu ngi ci liggéey Xelcom 2024. Euh, ñu daal di taxaw ak Serigne euh, Mame Niang ci ngóobum Xelcom mi Serigne maam ñu laaj ba xam yow fan nga daal di bàyyi ko ñëw ci liggéey bi ak liggéey bi dëgg dëgg dëgg dëgg njàmbaar gi pëstef gi naka ngeen ko nosee ba liggéey bi teel a yembe ni jàmbaar rek man maa ngi bàyyi ko dëkk bu ñuy wax ndokk dëkk ba nga xam ne fa fa lañ fondement jumaay Touba yi fa lañ ko gasee fa ko bàyyi muy ndok muy ndok carrière ci ruñu ba tey maa ngi ñëw ci liggéey bi wax dëgg yàlla moom liggéey bi ay jàmbaar lañ nangu na ñëw liggéey ñu ngi nekk daal maam sëñ sëñ Antoom sëñ Modou Rokhaya Mbacke jàmbaar lañ mbooloo ba ci ruñu ba tey maa ngi ñëw ci liggéey bi man nag maa ngi bàyyi ko dëkk bu ñuy wax ndok foofu lañ jëlee doj ba wax fondement jumaay Touba ja yóbbu ko yóbbu ko Touba maa ngi sama juróom ñaar fukki ak ñaar may ñëw ba nëgë ni ay am nañu pësteef mi ngi bàyyi ko daal sëñ Cheikh Anta Mbacke moom sëñ Modou Rokhaya Mbacke jàmbaar lañ daal ay jàmbaar lañ daal nangu na ñoo liggéey am nañ jom yàlla nañ yàlla fay wax dëgg yàlla ba ñu xëyee ba tey tax wuñ dé lañ faransi woon démb ca ngoon lañ faransi woon noppalu wuñ benn yoon ñu ngi ñu ngi liggéey ba ndëgë ni ay jàmbaar daal góor ñi jigéen ñi daal ñëpp a ngi nii rek boo seetaan jigéen ñi ñoo mën góor ñi waaw yëpp daal ay jàmbaar lañu waaw di leen ñaan fa wu gudd ak wér-gu-yaram daal wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ nangu nañoo liggéey am nañ jom am nañ ful di leen ñaanal fii nag mooy daara sëñ Cheikh Anta moom sëñ Modou Rokhaya Mbacké waaw waaw. salaamaaleykum wa rahmatulah jaa ngeen jëf mbokki internet yi ginnaaw bi ñu leen jaajëfalaat bu baax a baax ñu taxawaat ak meneen mbokkum euh, taalibe ñu koy wax Serigne Diassène mu ñëw ci ngóobam Xelcom mi 2024. papa ginnaaw bi ñu la jaajëfalaat bu baax a baax macha allah at yi bari na yàlla na gën a bari ñu bëgg laa laaj Xelcom ban année nga fi dala ñëw ak euh, liggéey bi naka la nasoo parce que njàmbaar gi nii nii. taala rajo ba ma ma laajee ñu ne ma asalaam la dama bég lool ndax salaam asalaam ah, maanaam dem naa fa demati fa Fallou Gillas xam na kan mooy mooy Serigne Ndiassène moom. Mm, am naa fa émission amati fa émission. waaw waaw foofu moom dañ maa xam bu baax a baax a baax. dañ maa xam bu baax a baax. Mm-hmm. man nag wax dëgg yàlla takk mënu ma leen ne at sàngam. Mm-hmm. waaye at mam tàmbalee. Mm-hmm. ba ci ba ba ci bésëb tey bii mhm. mosuma koo manqué yàlla dimbalee na ma mosuma koo manqué gor bu jëkk baa jëkk jëkk jëkk mhm. ba ci bésëb tey mhm. yàlla dimbalee na ma mosuma koo manqué ah bu jëkk nag xaw a ndaamiti moom wax dëgg yàlla waaye daanaka nag fii mun a toon moom àgg nañ ci li ñuy wax naan yor mu day dox dox na ba àgg ci daanaka moom ab noo safi na ndeysaan ndeysaan ndeysaan xéewal sëñ waaw ndax xéewal gee fi ak si dëgg dëgg yàlla liggéey bi Ah, Pastef bi nag moom mënu fee raw ndax yéen a jéeni demee nit ñi dañoo yàgg yéenee liggéeyal sëriñ Saliou mm-hmm. ba lépp lu sax ci sëriñ Saliou ñu nañ cay amee Pastef mm-hmm. da day feeñ lool ba ñëpp xam ne yéen xam fi fi yéen yéene ji toll mm-hmm. lo loolu loolu moo tax loolu moo tax fii nag moom dañu mooy Daaru Salaam damay faral di wax ne Daaru Salaam a ngi ku am sa aajo fas ko te ñëw Cheikh Anta faj sut aajo loolu dama koy faral di wax. Mhm. ma ne xel koom ku ñakk bëgg am koom maa ngi. Mhm. ku am tilim ndox maa ngi saabu baa ngi. Mhm. ku am tawat docteur bu docteur docteur yaa ngi. ku am tilim ndox maa ngi saabu bàyyi di lu waay di ñoddikaay ci ñoddikaay gii ku bëgg a falut ndombok tànk gaa ngi. daaru salaam ngi am sa aajo na fas ko ne ñoom Cheikh Anta fa sun aajo ñun ñëpp liggéey bi nag dama leen di faral di wax ne leen ñaqal sëñ Touba day faruk càggante ngir ñaq weeg bakkaar yi doon fekkante saa soo xamee ne ñaqal nga sëriñ bi rek fu ñaq wi toll bakkaar ba fe eh, day daal di départ moom duñ eh, bakkaar bakkaar ak ak ñaq sëriñ Touba du duñ duñ duñ ci yenn jëmm saa su ñaq bi ñëwee rek bakkaar bi départ na moom. Dakar bàkkaar bi bàkkaar bi départ na mhm. loolu laa leen di faral di soññee mhm. waaw kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Mhm. Baye waa moom mu mel ne daa bokk ci dëgg-dëgg liggéey bi ndax day mel ne sit bi nga xam ne mooy wane lépp yoonu murid di leeral lépp yoon wi moom bari na ci émission yoo xam si ne da koy ànd ñun di ko di ko doxal muy liggéeyandoo ak Serigne faalu Galas euh, papa ndax liggéey bi bi ngeen jotee agsi ci tool yi jot ngeen saytu tool yi ba xam ñaata tool la ak euh, boobaa léegi ñaata tool noppi wala liggéey bi nu dëgg-dëgg. maanaam nag foofu lan dese tey it wax dëgg yàlla ñi nekk ci tool yi dañoo war a xam tool yi te loolu nag ci na ma yàlla baal ci jëwriñ yi la Daaru Salaam bari na ay oto bari na ay rajo nag ni war naa fekk oto yeeg rajo yi di wër tool yi di jiida nit ñi fu ñu toll ñu xam ko lu lu lu tàmbali xam li tàmbali lu des ñu xam lim des waaye fi ne daanaka dañuy palamtu rek di def te loolu mën naa ñàkk nag daa mën a ñàkk nag Daaru Salaam bari na ay oto bari na ay rajo oto yeeg rajo yi daa war na wër wër tool bi di wax ak doomu aadama yi ñu xam fi ne fu jeex duñ xam fan fan cay teg te loolu mën naa ñàkk nag jëwriñ yi nañ taxaw ci loolu ngir yàlla ak sëñ Tuubaa day mel ne ful baa ngi nii taxaw actuellement gisaguñu kenn ku leen guidé actuellement ne leen nañ jëm ci zone nangam wala nañ jëm ci point nangam fa la liggéey bi desee te oto yeeg rajo yi mënoon nañoo dugg ci tool yi yëgle ne liggéey bi penku bi la wala ci soow bi wala ci gànnaar bi wala ci saalum bi kon day mel ne euh, kon mm, mbokk yaa ni taxaw gisatuñ lu ñu dagg xam naa li des mooy kenn ku nekk rek takk sa yu dugub rek boo gisee fi nga xam ne fa la ñu mën a dajale dugub ji ñu jéem a soobu ci jàggat mais actuellement moom gisatuñu lu ñu dagg fi mu toll nii ci dugub te gisuñ gisuñu benn jëriñ boo xam si ne mën na guider mbooloo mi na liggéey bi mi ngi ci penk wala mi ngi ci soow bi lépp daal actuellement li ñu jot a gis kon li ci des mooy mbokk taay bi daal li ñu yëg mooy ku mën a takk dugub na takk dugub ñu jéem a dajale dugub bi ndànk ndànk balaa naaj wee gën a tàng laaxi xol sedd na guy li xam nga ne Serigne Saliou rek moo ñu ko jalal xoolal nekk hôpital ñetti fan génn ñëw xel kom bàyyi tere ñu yaay tere ñu mais teewul suñu bakkan bu ñu ko laajoon dañu koy jox kontaan nañ trop waaw sëñ bi ñu ngi waat bu baax a baax mbokki taalibe yëpp di amaan mbégte bu baax a baax ci liggéey Serigne Saliou bii ñun uh, groupe doom day waa kër Serigne Saliou suñ xol sedd na lool ci liggéey bi am nañ mbégte bu baax a baax a baax a baax a baax billaahi Mbàkke doyalun bu ñu dolli woon ñu daal di jël waaye ñu ngi sant baax suñu jëwrin Murtala ak bool ñi nga xam ne rek ànd nañoo ñun bàyyi ko Touba depuis keroog àllarba ba léegi ñu ngi fi waaye sëriñ boo ñu ko jaral sant nañ suñu membre yëpp di soo ñawaan nag mbàcc mi nañ ko gën a waajal ndax liggéeyal sëriñ Saalu ci la njariñ rek nekk kon ñu ngi sant jëwrin Murtala jëwrin bàcc soxna yi maam jaar kan soxna na way sekk yaay fayam ni yaa yaa caw mi nga xam ne alors ba léegi génn tool yi daal ba sax dafa nangoo toog kon ñu ngi jaajëfalaat ñëpp di am mbégte baax a baax jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatulah jaa ngeen jëf mbokki internet yi ginnaaw bu ñu la nuyuwaatee. salaamaaleykum wa rahmatulah jaa ngeen jëf mbokki internet yi ginnaaw bu ñu leen jaajëfalaatee bu baax a baax. comme ni ñu leen ko waxee woon ci boobu ba léegi ñu ngi ci euh, Daarou Salaam góobam Xelcom 2024. day mel ne li ëpp ci dagg bi daan nay àgg ba fi ñu toll actuellement mooy dajale dugub yi ñu taxawak ak jëwriñ ni jaag bi mu nekk jëwriñ sëriñ Gora sëriñ moo Modou Rokhaya Tine ñu taxaw Serigne Modou Rokhaya Tine di jëwriñ ni jaag bi mu mel ne kenn ku nekk gis na dimension jaag bi ci guddaay bi ak ci taxawaay largeur bi kon dañ koy euh, jox kàddu mu daal ñuy wax fi liggéey bi toll actuellement daal ñuy wax tamit euh, jaag bi dimension bi ñaata lay daal di doon tey it waxaale ñu tool yi ñaata tool la Serigne Modou Rokhaya Tine bisimilah bisimilah mina seytaan rajim wala xawla wala quwata illa billahi al asim ah, sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di leen ziar di ziar télévision yi nga xam ne ñoo fi teew rajo yëpp ah, di jiital ci nuyoo beeg ziar bi nag euh, borom daara ji nga xam ne mooy sëriñ Cheikh Salihu yal na ko fi saa borom yàggal lool te ànd ak wér waaye di ci toftal sunu jàmbaar ji nga xam ne mooy sunu wasiila di maam Cheikh Anta Mbacke moom sëriñ Modou Rokhaya ñu ngi koy ñaanal jàmm ak tawféex di ko ñaanal mboolem taalibe yi mu àndal sëriñ bi ñu ngi sant yàlla bu baax ci teew bi ñu teew xel comme tey ah ci liggéeyub sëriñ Cheikh Saliou bi nga xam ne moom lañ jox waa Darou Salaam ñu ànd ko mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci Darou Salaam gépp ah ñuy sant yàlla nag ci liggéey bu sell bi nga xam ne moom la ñu liggéey muy liggéey bu mucc ayib ndax taalibe yi moom damay faral di wax neen sëñ Modou Mamoun doon doon wax naan ab dong mbaamu lawbe la yor jambar ci ginnaaw du ko téye yënub sëf saa su ne nañuy sasu ñuy sant yàlla nag bu baax ci teewaay bi nga xam ne moom la jullit yëpp teew ak taalibe yi ci liggéey bu sell bi ba ngoom bi fi mu toll nii sax ah jëwriñ ji dugg ci biir tool yi léegi neena na yegg na waaye nag ñu ngi ci lepp bi lepp bi nag wax dëgg yàlla ca suba it lañ ñëw rëdd jaag bi waaw ñu ngi doon xayma 60 mètres waaw foofu fa lañ déparé 11 mètres yaatuwaay waaw lëngër loolu daal lañ tàmbalee fi mu toll ni nag wax dëgg yàlla dimension nii eh, romb na un mètre nangam daal xam naa ñu ngi yootu deux mètres waa guddaay bi kon loolu itam wax dëgg yàlla ñu ngi ci sant yàlla xam naa ñu ngi taaxeeru diggante fii ak une heure na lepp bi fu mu toll rek bu soobi yàlla bu ngeen ñëwee dinañ leen waxaat dimension bi fi mu toll ak ak ak longueur bi fi mu toll ñu sant yàlla bu baax di leen ñaanal waa télévision yeeg rajo yi fi teew yëpp yàlla nañu ko def téeméeri at yu tàmbale ren ci barke Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf jaajëf sëriñ Gora kon boog sëñ Sall ñoo ko daal di déggandoo ñu daal di bàyyi ko Daaru Salaam euh, lépp ngir liggéey bi sëriñ Touba sëriñ Sall bi nga xam ne kenn ku nekk xam na ne ñaq jariñu la gis ngeen dimension jaag bi ak euh, guddaay beek yaatuwaay bi mu nekk liggéey boo xam si ne liggéey bu paseefu la euh, liggéey bu ama am am solo la kon xam naa ne du ñàkk ne ñu topp site bi rek lépp loo xam si ne ruuse na ci ngóobu xel kom des na leen ko baaxee incha allah.